Ah, kontaan nañ ci trop parce que dañu gisanteeg suñu mbokk africain yi nga xamante ni à chaque fois bu ñu voté dañu jital mais bi yoon dañu jël suñu destin en main and liguey euh, ak africain yi nga xamante ni moom la ñu euh, mbir mi. euh fukki deuk ak juróom ñoo waroon mais fukk mo mo muju valider ay ay euh, participation ci compétition bi. non du manque sax de communication parce que liñu def yépp sa ñu koy def Dakar d'habitude day bari nit day fees mais comme euh, jam Diamniadio la c'est la première fois ñuy organiser fu soree nii xam aussi lolu motax ci premier jury nit yi euh, xamaguñu aussi yone buñu jaar pour mais inshallah buñu communiquer rek euh, nit yi dinañ gëna donc euh, fi ñu ngi fait compétition bi ce n'est pas dans une salle dédiée au sport mais en tout cas on sait que euh, fii aménagé nañ ko bo xamné euh centre exposition bi nek ci jam en tout cas on na ne na accueillir yenen compétition yu bari donc c'est l'occasion pour Nous ñu féliciter fédération ak le président de la fédération muy Mamour mais également le comité d'organisation ci organisation dans le luñ wax euh, en terme de participation kontaan nañu trop parce que zone bi mu ngi am euh, fukk ak euh, nation mais au moins lu tolloog juróom ñeent teew nañu fii tey nag gis nañu ay compétition ñi cinq combats amener na fi juróomi combat am fi mais wan nañu sénégalais yi wane nañu seen parce que ñaari combat yu ñu jot a dugg ñun ñëpp ñoo ñoo ko gagné bon loolu nak day wone euh li ñuy xaar ci ñoom comme daw ñoo doon champion zone 2 bi ñun ñukay koy yaakaar pour année bi encore également ñom tam ñu gagné waat titre bi parce que loolu lañ ci bëgg mais li yëpp tamit daf ñuy jëble ci euh événement yi di ñëw euh fileeg euh, déwén muy muy Jeux olympiques Paris 2024 mais en termes d'organisation comme ñi ay senior lañ nous avons wax un test event pour pour organisation Jeux olympiques de la jeunesse en 2026.